المصطفى كليتي كل سنة وأنت وحدك أسلم يا ربنا حبيب حق كوسك يمنى الحياة نور التسير رجعنا إلى نار فالجنة كوثر شريف كريم إنك الله وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kilifa yi ñuy dégg bokki taalibe yi bokki jullit yi seenu taalib di seen bokkum taalib Moustapha Seck Baye Fall mooy waxtaan ak yéen tey jii ci kaw Kawsara Fall ci ndigalu sëriñ bi ci lu jëm ci wàllu tabaski yi nga xam ne ndigal la lu bàyyi ko woon ci borom Tuubaa mu Rasuul ñëw ci maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina njobootam gépp nag maase di ko jëfe muy njobootam maam Cheikh Ibrahima Fall bi ñu demee ba seen sit yi des feetam yal nañ fi yàgg te wér te sëñ Cheikh Jëmb Fall ne ca bopp ba jiitu ci ak sëñ Amdu Kadi Fall mii di suñu sang ak mboolem njabootu Cheikh Fall bi ñoom it ñëpp ànd maase di ko def muy liggéeyu tabaski yii liggéeyu tabaski yi nag lu tuuti laa ci tàmbali dikkee nun kat yàlla daa dogal tabaski nun waa ga Cheikh Fall noo ko moom ndax Baye Modou Gueye moo ma wax ci njaareem ni ma Moustapha ma ne ko Fall mun ma Cheikh Fall de woo nanu nu ñëw mu ninu seen maam Ibrahima mii kat ko fi yàgg la daal ni seen maam Ibrahima mii kat liggéey na fa Makka jàkka joo xam ne at ba at dañ ko julli liggéey fii fi njaarim jàkka joo xam ne at ba at dañ ko julli loolu moo nu xamal ni maam Ibrahima Xalilulaay moomee mooy maam Ibrahima Abou Rijal mii kon maam Cheikh Ibrahima Fall su amee ndigal ci borom Tuubaa muy indi ay xarit Tabaski ak njobotam diko def ba itam diko def lolu mom warteef lo xamanteni xam la lu bayiko ci ko ca baax borom Touba Xaadimu rasul waaw nga fi ci ko sara nak tay nak ngi ni ci buntu keur Cheikh Seydi Moukhtar khalifa general lu murit yalla na fi yagati te ànd ak indi Tabaski Serigne indi Khady Fall moom Serigne Assane Fall ànd ak rakam ju baax gi sëñ Cheikh Khady Fall ak mam Lamp Fall ak sëñ Cheikh Fall ak sëñ Alaaji Fall ak seen rakki ñoom ñëpp daal ñu ngi ci liggéey bi ah, sëñ Abdou Aziz Fall yebal na doomam sëñ falum sëñ Amdi Yaasin Fall mi ngi ni toog sëriñ Assane Fallum sëñ Amdi Nogay Fall mi ngi nii toog maam Lampum sëñ Seexuna Fall mi ngi nii toog maanaam daal njaboot gi kenn desut ah, tabaski yi nag day ndigal ndigal li nag sëñ Amdi Kadi Fall noonu nanu nun waa kat Cheikh Fall day lu nu def lu ne addiya la tudd bu dee ndogu yi addiya la bu dee tabaski addiya la nun addiya la ñuy liggéeyal tabaski yooyee nag bi nga xamante ne saamam si Faal dem na njabootam gépp dañoo maase di ko def ni ñuy defaree ni ñuy defee ndogu yi Serigne Assane Fall mii ànd ak magam ju baax ja Cheikh Moudou Mouta Fall di ko joxe te joxalin woo xamante ni joxe wu ñu positif la joxe wu ñu positif woowee nag. sunu sang bii moom la jël moom suñu am di soo waxee mu ni man de yeesal tànk ci mag ña rek ci laa ndax bi nga xamante ni Cheikh Modou Moustapha Mbacké alayhi salaatu wasalaam bàyyi ko na fi 1945 Serigne Fallou Mbacké toog boogee ca déwén sa li 1946 ca la Serigne Fallou jëkk dafi am tabaski fii ci xalifa yoonu murit moo woo sëñ Modou Moustapha Fall ni ko dama bëgg nga wutal ma juróom benn fukki gàtt te jamono boobu dafa daje ak bekkoor kon ne xam ne sëñ Fallu ci bekkoor la tooge boobu kilifa yi gën a mag am fukki gàtt tabaski képp yombu leen waxuma ak juróom benn fukki gàtt tabaski sëñ Fallu sant ko sëñ Modou Moustapha Fall sëñ moo Moustapha Fall dajale tabaski yi diggante Touba Mbacke Kawsara Gojo Ngigis Gébb Touba Fall lépp tabaski yi mënut a daje matul mu daal di dem kees booba kees bari na ay baay faal te booba fonctionnaire yu bari kees la ñu féete mu dal di leen di woo ñu ñëw mu ni sëñ Moustapha Fall ni leen yéen waa Thiès te booba mbooleem njobatu Cheikh Fall gi booba jamono ji dafa bekkoor gis ab gàtt képp moo yumbul njobatu si Fall gépp topp nañ ci ginnaawam lu ci waaye am jox nga ko ko waaye nag juróom benn fukki gàtt yi matul ndax day bekkoor ndax moom bu ko xaalis di jënd dañu ko am waaye xar nañu gisul mu ni yéen waa Thiès ba mu leen dajalee ba noppi da ngeen a bëgg a tabaski man mu tawa faal ma jéeg wala déet daal di suñ Fallu Mbàkke sama sang bi day juróom benn fukki gàtt yim ma laaj su ma ko joxewul man mu tawa faal damay jéeg ab Baay Faal yoon ba soñ maanaam fonctionnaire yi yu Baay Faal yi dugg ci seeni i gétt dagg buumi xar yi indi ko Cheikh Moustapha Fall ñu wañ ba ni ko Fall lim bi mat na ba ëpp na mu ni lim mat na ba ëpp na ñu ne ko waa Faal mu ni kon nañ nañ ñëpp yegg suuf ma waxtaan ak ñoom sëñ Moustapha Fall keroog xutba ba ñaari baat la xutba sëñ Moustapha Fall dani ak càng genn la borom Touba jël na ko ak waa këram ak taalibee fi des ku ñu ko jël wacc la ñàkk nga daal di tàll ñu tàllal mu ñaanal leen sëñ am kat yi Fall ñu ne ma bërki démb saa maam a Ibra Fall dafa mosa a laaj ko baax ki ko Mbàkke ndax sama doom ju jigéen sañ naa ko may jullit bu góor ne ko ndax Mbàkke sañ na maa tabaski ku baax ki ne ko boo demee lu nekk na ko indi soo ko indee ba noppi boo demee loo fa fekkat nga tabaskee ko positif boobu nag ci la si am na nekk buy indi indim tabaski dafa bàyyi leen ndax nun de seere noonu ci positifam jamono buy indi tabaski fii soo ko fa am xar wuutuwul dañu dem dara jëndali ko lu mu tëbaskee te lool nag di posture bi nga xamante ni Serigne Touba moo ko waxan maam Cheikh Ibrahima Fall maamam ju baax ja doon ca dox wuy juróom mu baax ko Serigne Assane Fall doon ca dox Serigne Moustapha Fall doon ca dox mboolem njabootu Cheikh Fall gi dox ci loolu yi te ba léegi mboolem këri Cheikh Fall yëpp ci loolu la ñuy dox suñu am di xëy Fall mii nu àndal it moom li mu wax mooy yeesal positif mag ña rek te maam Cheikh Ibrahima Fall la ko baax ne ko boo demee lu fa nekk na ko indi. soo ko indee ba delloo nag loo fa fekk na ko tëbëskee sëñ am di ko faal tey ji noonu noonu nga def kon nuñ bàyyi faal looloo nu war ni ko sa doom di jigéen jigéen ndax sañ ko ma jullit bu góor nag boo demee tey na nga ko def tey boo demee tey na nga ko def ndax sa maam Cheikh Ibrahima Fall moom day jëmm joo xamante ni moom maam euh, li si Moussa Fall waxan ni ak taalibe fi ne ak ak càng ndax ak càng genn waa kër Sëñ jël nañu Sëñ Tuubaa jël na waa këram ak taalibe bi fi des ku ñu ko def ñàkk nga njaam gi ak tàng gi Sërif Asan Faal wu juróom baax wii moo waxan ni mos naa ànd ak sëñ Moustapha Fall ak sëñ Momar Taala Fall nee na bi ñu ñëwee saamam sira Fall ni Moustapha mu ni Fall mu ni Mor Taala mu ni Fall mu ni Sërif mu ni Fall mu doom seen seen njaam gi bu ngeen deme ba ca kanam canggol nuroo ko cang lool ba mu dàq ak cang waye bu boba na ngeen gore te ngo don ay jam lolé nak ci lañu nek motax ab ab kuy jéem xanti wo tebeski da nga japp sa bop asgor waye nak jam bi mom sañ na li fi nek mu jox sang yi ba nopi lu fa ñew mu xam ni sang bi mo ñew ci mom lolou waral ah l'islam ñaari drapeau la drapeau cang gi ak drapeau jam gi drapeau cang gi serigne touba jël nako jël gi Serigne Touba jël drapeau càng gi muri tax ci yoonu na nga digul nak limay wax bu baax yoonu murid dañ khalifa general général lu drapeau càng gi Serigne Touba jël nako ko akaram waye fal drapeau am khalifah gi Cheikh Fall jël nako khalifa general bay lu Fall na ngay khalifah khalifa sëñ diou khalifah sëñ diou khalifa sëñ diou waye khalifa general lu Fall khalifa general di murid drapeau khalifa general lu moy drapeau càng gi drapeau njaam gi moy khalifa general lu Fall loolu nak ci la tubaab bi roy ba fi ni muy Senegal, muy Afrique muy Europe muy Amérique mu fu mën a doon maanaam kër présidence boo dem su fa président ba nee ñaari drapeau a fay ne drapeau ba ca kaw mooy mooy drapeau national bi nga xamante ni état bee ko moom su président bi falee ne ci biir kër gi am na drapeau ba ne ca suuf drapeau ba président bee ko moom ñu nga xam ni président bi mooy mooy jaamu état bi rek mooy jaamu état bi ndax ki nga xamante ni lu baax fu lu baax nekk su ko xam yi dina ko wuti indi di liggéey état bi kooka moom loo ko mën a tuddee loolu moo jaam état bi moo tax ca ca la yi roy saa bu président bu mu mën a doon Franc nii ci këram soo xoolee ci président ba dañ xool ñaari drapeau benn bu mag ba di flotté ci kaw bu ndaw ba di flotté ci suuf suufa lii ko tuñ ñu bàyyi bu ndaw bu bëkkiru mu ñëw saamam si Ibrahima Fall nag drapeau njaam gi jël na ko muy xalifa généralu Baye Fall drapeau càng gi borom Touba jël na ko muy xalifa général bu Mouride sëñ am na xalifa nag ci loolu la moo tax loolu la ñuy son kon nag noonu Baye Fall li nu war ci Tabaski kon mooy noonu sëñ am na xalifa wax ni maama Cheikh Ibrahima Fall moo ko wax. nun kat nun tabaski waruñu feeg jëloonu suñuy tabaski jox sëñ bi moom itam mu jël jox ab sangam lu fa ñëw nu tabaskee ko ndax man fàttaliku naa du ma mag waaye duma ca gone ya lool nag fàttaliku naa ci dëkk Baay Faal yi te booba jamono neexewul nii su tabaski jotee mag ñi sunu baa ñoom dañu daan jël xar yi tegal sa baaraam foofu wax ni damaa wax ni duma ca mag ña lool waaye duma ko de lool fàttaliku naa dëkki Baye Fall te ci dëkku Baye Fall laa juddoo yaroo te booba jamono ji neexewul nii su ëpp tabaski Moussa jot Baye Fall yi dañuy jël mboolem lu am ci xarit tabaski jox ko sëriñ bi mu indi ko sëriñ Touba su ko defee Baye Fall yi nag rey aw nag loolu ñu wax tong-tong ñu tong nag wa kenn ku ne tegg ab saam yóbbu si kër toggi man fàttaliku naa ko ci dëkk ba mu juddoo yaroo ci xam ne moom booba bàyyi fa li ci ëpp noonu la ñu tëbaskee ndax jamono ji neexul te dañu am mel na xar rëy ko suñu kër bàyyi sëriñ loolu moom loolu sant fa nangu ko nangu ko suñu am di fay ci la nekk day jëmm joo xam ne nag ni na su ma defee benn yéene fukk su ma defee fukk yéene na téeméer fi ne jëfam ji ngeen di gis mu def ko dafa wax ni yàlla kenn mënu ko jënd ndax lu waay am yàlla la ko jox kon nag li la yàlla jox sàkk dañ koy sàkkaat delloo ci yàlla mënoo jënd yàlla nee na pos-pos bi nga ko joxe yàlla rek la yàllay xool sëñ bi ko ne na yàlla aw ñay réggu ko nawu la ñay na xeebul picc nee na rab bi ngay bi ngay reyal yàlla positif ba nga koy reyale yàlla rek moom la yàllay xool moom lay naw moom moo tax nag moo ni fas naa yéene lu ma am dinaa ko def ci yàlla lu ma waaye joxit naa la ko defal ci yàlla te ci pour fa tax ma di ko def ci yàlla fi ne sëñ bi ni mu ñu soññ mooy nanu fas yéene kenn ku nekk ci nun te bëri ki démb kat nee na ma su waxuma yi xar yi ngeen di gis nii waaye xari tànneef yi nga xamante ni moom lañuy moom moom la ñuy wax ah, xari qualité yi kon léppam moom lay doon te xari qualité kat mooy mooy baali laa dun kon si indi xarit Fall fi mu ëmb ak bëggam yegg fa dooleem yeggu fa moo tax moom wul daraam nawluwul kenn daraam ndax koo xamante ni soo yéenee soo amee fukk yéene nga junni dëj fukk nga toll nawoo li nga def ah yéen nag ñu ngi leen sant bu baax yéen waa rajo Lamp Fall télévision di sant Aliou Thioune waaye lii tam ah, ab yëgle rek la mooy lan ñu ne bokkal kër Cheikh Fall bu ngeen dee ñëw di wane lii ñooñu di ko gis xam ne loolu war na leen ab soñña la waaye li ñuy li ñuy li ñuy def suñ tubaa rek lañ ko won bi ko suñ tubaa gisee doy na si bi mu taar ni te di ko gërëm ñaan mu yàgg a yokk ko fi wax na ni mag sëñ bi noo bokk lépp loolu doy waaye wan di nga xamante ni nag moom la ñuy woon sëriñ tubaa li ñuy jëf su ko gisee doy na waaw leneen li ci des nag mooy lan muy lan lii ngeen di wane suñu bokki Baay Faal yi dañu koy wane mel ni ndënd moo xamante ni mag ñi dañ ko doon tëgg ni kaay liin wuyu ndigal gi seen rajo bi am ndënd la nun kat gis gi ndax ku baax gi boo demee ci téere woon na xaqiiqatu som som xati xaw xawli raddi yi ixbaaru sañu saali indi xaret yi nun dégg dégg li ñu def dégg lu ñu ko kenn ku dul nag ñi ko war a jëfee ndax dëgtal nañu leen ko ngir bu ñu ko déggee ñoom war koo man a jëfee xam ne nii la demee wanuñu ko kenn nit ku dul kenn ko war a bukkal jëf kookon war na gis ko war koo war koo jëf la sëñ si wax na ci lu bari bari xaqiqatu riya laa daa ak yaa si eexaa uxurbati li xas di naa si ñooy bam jeex kon sëñ bi li nga xamante ni moom moom la mooy positif bii di ndigal lu jóge ci borom Touba Xaadimu Rasuul ñoo ci maam Cheikh Ibrahima Fall maamam yaa ci Serigne Assane Fall wujuram wa Serigne Assane Fall daan ko doxee nii mooy naaru Kawsara ni naa leen itam Serigne Assane nag noonu waa Kawsara am am ameel nañu njukkal njabootu Cheikh Mamadou Lamine ameel nañu njukkal njabootu Cheikh Mamadou Lamine ndax koo ne Kawsara Fall sëñ Mbaye koo ne Kawsara Fall ñu xam ni waa kër Serigne Assane la te Kawsara Cheikh Mamadou Lamine wajur Cheikh Sidi Moukhtar yi moo tudd Kawsara moo ko tudd Cheikh Amdi Khady Fall mooma ni 1927 la ko suñu Assane Fall sëñ ci ndigalu maam si Ibrahima Fall mm-hmm. mooy at mi fi ko baax kii mujjee nekk ak noonu 1927 بس كأسن فاف سنتي كوسرا شيخ محمد اللمين ابن خادم الرسول ما يسرين توبا موجك خير كسر فالدين جاي خير نوجا سنتي با نفي موي فن نيك في موي داري شيخ فالدين جانو خوان دوا با سين محمد اللمين نفي موي كوسرا دي في موي كوسرا دي في موي كوسرا دي ليك نع مقل بس كأسن فاف مقل دوم يسرين توبا جو جيجا خامني موي يسرين توبا موتك سرين أسن فالدك بوم سنتي تو كوسرا te Kawsara mat naa bàyyi xel ndax benn baat dañu ci alxuraan daa beru inna ataynaaka Kawsara diir siwul Kawsara tam xoolal Kawsara ñetti cër la benn cër ba mu ngi ci alxuraan ab baat la mu ngi inna ataynaaka Kawsara cër ba ca des am ndox la mu ngi buntu àjjana balaa kenn def àjjana jaar fa naan